mbokk yi cant naa gërëm ñeel leen ñu fas yéene ànd ak yéen ak xibaar yi ci biir kër gi nga ànd ceeg man mi di Ansumana Sow Ñaasi ñu tàmbale ko ci bopp xibaar yi ah, dinañu gestu li nga xamante ne moo di nag ah, juróom-benn li yoon ah, gannaaw bi nga xamante ne kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllum jokko ak jokkalante. Ah, mu ngi nag seexoo ab waxtaan ak taskati xibaar yi ah, xamal leen nag ci yenn ci liggéey yi nga xamante ne ah, nguuran ko def nag fii ci biir réew mi ak yenn ci xew-xew yi nga xamante ne askan gi nag yital na leen lool te nag muy na saxal lu jëm ci wàllum lii jëm kanam fii ci biir réew mi biir xibaar yi tamit fële ca pencab réew ma a bi nga xamante ne ñii di nag député yi dinañu fa nag ndaje ci li nga xamante ne Ah, moo doon nag ah, ndaje bu am solo ah, ndax dinañu gestu lii di baati réew mi mu di nag constitution bu es bi nga xamante ne lañ doon nag gestu di bindaat dinañu ko fa nag teewal niki tey mu yemoon nag ak fukki fan ak ñeent ci weeru septembre dem nag tombe ak bés bi nga xamante ne lañ nekk di màggal nag ràññee ne daal mooy international démocratie de jagleel ko lu jëm ci wàllum démocratie ci àdduna wërngal këpp ci biir xibaar yi tamit dinañu gestu ah, foofale ci biir ah, Banjul ab xew-xew amoon fa nag niki samedi ah, ñu ne nag ab néeg bi nga xamante ne étage la ñaari néeg moo daal di daanu foofale kenn nag ñàkkut fa bakkanam waaye am ñoo xamante ne jëlee woon nañ fa nag gaañu ñu daal di leen dawale fële ca ke docteur bi nga xamante ne moo ne ci biir Banjul mbokk yi kon nag pour yaatal ak faram-fàcce ak yenn xibaar ngeen dooli taxellu Ah, mbokk yi kon nag cant ak ngërëm ñeel leen ah, saa su ne comme nañ leen ko jukkee woon rek ci bopp xibaar yi ñu fas yéene andi yaatal ak faram-fàcce ci la ñu jot a fii ci biir kër gi tàmbale ko nag ci kàddu yi nga xamante ne kii di jawriñ bi ñu dénk wàllum jokko ak jokkalante fii ci biir réew mi mu di information minister honorable Ibrahima Silla gannaaw bi nga xamante ne mu ngi seexoon nag ab waxtaan ak lii di taskat yi xibaar yi andi naka leeral ci lu jëm ci yenn ci liggéey nga xamante ne nguur mu ngi ko def naka fii ci biir réew mi Ah, mu tàmbale ko ci lu jëm ci bànqaasi nguur bi nga xamante ne ah, moo saytoo naka lu jëm ci wàllum yenn ci yàqu-yàqu yi nga xamante ne dina faral di am ci biir réew mi ah, wax ne daal lu war a toll ci ñaar fukki junne juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñetti nit yi nga xamante ne ñoom nag jamono ji seen alal yàqu na ci taw bi nga xamante ne moo am naka ci fan yi ni weesu Ah, ci biir loolu tamit mu daal di xamal taskati xibaar yi ne lu war a toll ci eh, juróom-ñeenti junne eh, fukk ak ñaari kër yi nga xamante ne daal ah, ñoom itamit nag ah, seen alal yàqu na eh, fii ci biir réew mi rawatina ci bërëb yi nga xamante ne lañ gën a xamee ci URR mu di Upper River Region ne daal boobu la tund moo gën a sonn si jamono bi nga xamante ne taw bi mu doon taw si fan yi weesu. ci biir loolu tamit mu xamal taskati xibaar yi ne ah, ah, banxaas nguur bi nga xamante ne mooy gestu naka li nu mel ah, daal na ci bind yi nga xamante ne def na ko ci ay gestu ne lu war a toll ci juróom-ñetti fukk ak ñeent bërëb bi nga xamante ne fa la ñoo jëlee lii di ndox ci biir réew mi yëpp nag dafa daal di yàqu te lu war a toll ci benn téeméer juróom fukk ak benn bërëb bi nga xamante ne Ah, nit ñi daal fa la ñoo suturaa seen bopp ah, booba itamit nag dafa daal di yàqu ah, te lu ko waral nag moo di taw mi ci biir loolu mu daal di xamal taskati xibaar yi ne nguur mu ngi fas yéene yëkkati lu waral toll ci fukk ak juróomi million koppari réew mi mu di million dalasis bi nga xamante ne ñu ngi ko fas yéene nag jagleel ñi nga xamante ne daal seen alal yàqu na ci taw bi ni bi nga xamante ne moo amoon naka fii ci biir réew mi ci fan yi ni weesu ci lu jéem ci li nga xamante ne moo di baati réew man doon nag gestu daal di bindaat beneen mu di constitution bu es bi moom jawrin bi nga xamante ne moo yor nag laame ñu nguur di wax ci lu jëm ci wàllum jokkoo ak jokkalante xamal na nag taskati xibaar yi ne jawrin bi dénk wàllum lii di àtte ak yoon eh, mu di justice minister bi Dawda A Jallow eh, dina naka teewal baati réew mi es bi nga xamante ne lañ bindoon ah, ci li di pencab a ah, réew ma ah, ni ki fukki fan ak ñeent ci weeru septembre ci at bi ñu ne mu yemoon nag ak tey jii ci biir loolu mu waxi tamit ci lu jëm ci wàllum courant fii ci biir réew mi ñàkkum courant ak ndox ci biir réew mi moom a jawrin bi xamal na li di taskari xibaar yi ne fii bi at bi di jeex nag nawet nañ daal di yokk liggéey nga xamante ne lañ nekk di def ndax ñu ngi am li di ndimbal bu bàyyeekoo ci World Bank mu di bëri bi nga xamante ne euh, bi yëpp nag fa la ñu euh, daal di euh, gesto lu jëm ci wàllum koppar naka noonu tamit mbootaayu nag réew yi na ci biir tugal seen nag mbootaay bi nga xamante ne moo yor wàllum lii di nag ndimbal ci lu jëm ci wàllum koppar ci biir loolu tamit gis nañ tamit ne fii ci tundi Afrique soo jant yi tamit seen banqaas bi ñu gën a xamee ci OMVG ECOWAS bi nga xamante ne mooy saytoo naka wàllum courant ne ñooñee tamit ñu nge fas yéene lëkkaloo ak liggéey lii ak lii di nguuri réew Gambia ak NAWEC gis na daal lu jëm ci wàllum courant mu doon loo xamante ne lu yomb la fii ci biir réew mi. Ah, ci lu jëm nag ci wàllum lii di mbay mi ah, moom jawriñ bi tamit wax na ci den ne ah, lii di nag jawriñ bi dénk wàllum lii di mbay mi fii ci biir réew mi mu ngi fas yéene tàmbali nag ay projet yi nga xamante ne dina dooleel bërëbu jàngokaay yi ne fii ci biir réew mi pour nag tàggat ñii di ndongo daara yi naka noonu tamit dooleel leen ci lu jëm ci wàllum mbay mi fii ci biir réew mi Euh, ci lu jëm nag ci euh, banqaasi nguur bi nga xamante ne euh, moo yor naka lu jëm ci wàllum jëlum naamo moom naka jawrin bi wax nañ daal ci lu jëm ci li nga xamante ne moo doon naka loola gannaaw bi nga xamante ne lii di jàngoro mbas mi mu ngi tàmbali fii ci biir réew mi gis nañ daal li nga xamante ne moo di naka ñoom seen liggéey daf ko daal di nasaxal naka tuuti waaye ba tey mun nañoo déggal ne ñoom seen liggéey ba tey Ah, ñu ngi am naka loolu nga xamante ne moo di jëm kanam ah, ci lu jëm ci li nga xamante ne moo di Banjul Breweries Limited ah, moom jorin bi xamal na lii di taskari xibaar yi am nag benn ci a ponk yi nga xamante ne fañ ko jaayoon nag te kuñ ko jaay ñu ne ab doomi réew Gambie la te jamono ji ñu ngi waxtaan ak jorin bi nga xamante ne moo yor naka wàllum lii Ah, li nga xamante ne moo di njulax fii ci biir réew mi ah, pour nag tàmbali li nga xamante ne ah, moo di Banjul Breweries te nag dinañ ko toxal yóbbu ko ci beneen bërëb comme ci li nga xamante ne la ko nag yeggee li taskati xibaar yi Ah, mbokk yi kon bu ko defee ba ñu gestu suñu ñaaleeru xibaar ci biir kër gi ah, dem nag ah, nemmeeku ji lii di pencaba réew ma ndax ñi nga xamante ne ñoo di député yi ñoo fas yéene nag tey jii di fukki fan ak lii di ñeent ak juróom naka tey ak suba dinañu gestu baati réew mi nga xamante ne lañ doon naka daal di gestu di ko bindaat mu di naka 1997 constitution bi ci biir loolu. Ah, suñu naataango Aliou Cissé ah, taskatu xibaar QTV ah, daal di andi naka leeral ci lu jëm ci loola wone daal ne ci atum 2018 ci weeru juin ñi nga xamante ne ñoo di nag député yi ci pencab réew ma ñu ngi nag andi woon li nga xamante ne moo di nag baat maanaam sarta yi nga xamante ne moo daal di dooleel nguur mu daal di ubbi nag bërëb bi nga xamante ne mooy gestu li di baati réew mi daal di bindaat beneen ñu gën koo xamee ci constitutional review commission ci biir loolu lii nag wax nañu ne bokk na ci liggéey nga xamante ne président Adama Barrow nguuram lañ fas yéenoo def ci gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi doon nag sàkku lii di eh, nguur eh, fii ci biir réew mi eh, jiite ko di justice Thierno Souleymane Diallo CRC bi nag mu di constitutional review commission daan nañ di ndar keppal seen liggéey ah, fii ci biir réew mi ah, ci biir loolu tamit naka gis nañu ne ah, ñu ngi amoon lu toll ci fukki commissionnat ami tamit ñi nga xamante ne lañ doon liggéeyal fii ci biir réew mi ci seen seen biir liggéey nag dañ daal di wër réew mi yëpp ñaar ba ñetti yoon gestu naka waxtaan ak lii di doomi réew yi xam naka li nga xamante ne moo doon seen ak ci anam bi nga xamante ne lañ bëgg a dundee ci biir réew mi daal naka di ko bind tënku ko naka mu doon lii di baati réew mu ees ci biir loolu tamit naka demoon nañ ci bitim réew waxtaan ak doomi réew yi nga xamante ne ñoo nekk ci bitim réew ci biir ne ñoo ne fii ci biir réew mi ak itamit nag ay doomi yi nga xamante ne yëkkati woon nañ nag seen xalaat itamit yokku ko ci de ah, ay bind ak yu demee noonu ah, gannaaw bi nga xamante ne nag ndar keppal nañ seen liggéey ah, ñoom ñu ngi yóbbu woon nag loolu daal di ko bàyyee kii di njiiti réew mi ak jëwriñ bi nga xamante ne lañ dënk nag wàllum àtte ak yoon ci biir loolu nag niki tey kii di jëwriñ bi ñu dënk yoon dina yóbbu nag a bile liggéey teewal ko nag ci ba réew ma pour député yi nga xamante ne ñoo fane ne toogal falak askan gi daal di ci def nag ay gestu bokk na ci li nga xamante Euh, la ñoo nag euh, waxtaanee euh, mooy ndax dañoo déggal nag li nga xamante ne moo di constitution bu es bi maanaam draft bi mooy liñ gën a xamee ci nag consider ci biir loolu tamit dinañu gëstu xool ndax dina am yenn ci pàcc yi nga xamante ne dañ ko war a génne wala sax yokk ko wala sax daal di ko nag daaxlu su fekkee ne ñoom a gëstu nañ ko te doyut leen ci biir loolu nag suñu natango daal di andi ay leeral ne su fekkee ne pencaba réew ma dafa daal di déggal draft constitution bi maanaam consider ko ah, ci biir loolu ñu ah, jox li di IEC ah, mu di nag banxaas bi nga xamante ne moo saytoo wàllum li di sànni carte fii ci biir réew mi ñu daal di nag tàmbali pour nag doxal li nga xamante ne moo di référendum fii ci biir réew mi ndax ni ñi mën a sànni carte pour digal naam wala am déet yes or no ndax nangu nañ li nga xamante ne moo di draft constitution bi ci biir loolu tamit wax nañu ne pour ñu daal di ko dégal mu doon baati réew mi lu war a ci juróom fukki ci nit yi nga xamante ne ñoon nag nekk fii ci biir réew mi dañu war a bokk ci boobu la sànni kat waaye tamit ci biir loolu juróom-ñaar fukk ak juróom yi xaaj bi yëpp dañu war a déggal maanaam wax waaw bu ko defee ñu daal di ko mun a def naka luwaab fii ci biir réew mi bokk na ci li nga xamante ne moo nekk ci baati réew mu es bi de mooy ni daal képp koo xamante ne yaa ngee naka fas yéene sàkku barabu liggéeykaay njiiti réew maanaam bu nga nekk président wala sa doon naka député ci pencam réew ma yow da nga war a naka wane sa alal ah, maanaam déclare sa asset ah, ci ab commission bi nga xamante ne ah, dinañu ko sos fii ci biir réew mi ñu gën koo xamee ci anti corruption ak commission daax lu lépp loo xamante ne moo doon naka ñaawteef nag ak lii di njuuj njaaj ko war a def naka ci ci diiru naka juróom-ñaar fukk ak benn fan balaa li nga xamante ne moo di sànni kàttan fii ci biir réew mi ci biir naka baati réew mi tamit bi es bi nga xamante ne lañ bind bokk na ci tamit mooy pour naka ñu daal di yëgal nit ne yow ab njiit nga maanaam président fii ci biir réew mi war ngaa mun a am naka li nga xamante ne moo di juróom fukk ak xaaj naka bu tegal dara ah, su fekkee ne naka sànni carte am na pour naka ñu daal di la mun a déggal ne yow yaa am lii di ndam ah, daal di nekk naka président fii ci biir réew mi ah, bokk na ci tamit naka mooy di nga wone sa moomeel lépp loo xamante ne sa alala la te nga moom ko di nga ko daal di wone maanaam declare sa asset ak ki nga xamante ne moo doon naka sa soxna ci biir loolu tamit ñi nga xamante ñoo di chef yi ak naka lii di alkaali ci biir réew mi ah, duñ daal di bokkaat nag ci lii di politique ah, képp koo xamante ne yaa ngi juddoo fii ci biir réew mi wala say waajur naka ñu doon ay doomi réew yow na war ngaa mën a nekk lii di doomi réew Gambia ah, ci biir loolu tamit political party yi nga xamante ne ñoo ne ci biir réew mi ñoom it dañu war a moo wane nag seen alal lépp loo xamante ne la ñoo am ci alal ak fañ koo jëlee dañ ko war a wane askan gi xam ko ndax li nga xamante ne moo di nag lii di njuuj njaaj ak tapale ñu daal di ko dàq nag ci biir réew mi ah, ci biir loolu ah, gis nañ tamit ne benn ah, ci naka banxaasi nguur bi nga xamante ne bu am solo la ñi nga xamante ne daal ñoom wane nañ seen naqar naka jëmale baati réew mu es mi nga xamante ne lañ bind de mooy ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllum kaaraange di soldaar yi ndax wax nañ daal ñoom gisuñ ci seen bopp ci biir loolu ñu daal di ñaax lii di nguur ak askan gi ñu daal di leen bàyyi xel Ah, ci nag li nga xamante ne moo di baati réew mi es mi ñu nekk di bind ah, ci biir loolu tamit gis nañu ne ah, li nga xamante ne moo di nag ak gestu lu jëm ci wàllum luwaa dafa doon loo xamante ne ñu bëri nag dinañ ci wax di am ñoo xamante ne ànd nañ ci am tamit ñoo xamante ne ànduñ ci waaye ñi nga xamante ne moo di CRC di nag kuréel bi nga xamante ne nguur moom lañ sos pour gestu lu jëm nag ci lii di baati réew mi ñoom daal wax ñu ne liggéey bi nga xamante ne lañ doon def te nag ñu daal di ko déggal ci ab gestu ya ñu def Euh, lépp loo xamante ne moo nekk ci baati réew mi es mi euh, ñu ne moo doon loo xamante ne mooy kaddu doomi réew yi euh, moo doon naka seen i mbébét comme ci ni nga xamante ne la ko suñu natango daal di ko andiyee naka ci ay leeral mbokk yi kon bu ko defee ñu gëstu euh, euh, beneen xibaar naka foofale ci biir Banjul euh, ndax naka gëstu wane na ne li nga xamante ne moo doon nag ab taax moo fa daal di daanu foofa naka ci gox bu ngeen a xamee ci Wellington Street te ne ci biir Banjul gis nañ tamit naal ne Ah, wax nañu ne kenn nag ñàkkul fa kanam ah, waaye nag am na ñoo xamante ne dañ fa daal di jëlee ay gaañu ah, lii nag wax nañu mu ngi xew a ki samedi bi ni weesu ci benn waxtu ci bëccëg nag ci biir loolu ñu ne daal néeg bi dafa doon néeg boo xamante ne néeg bu néeg bi daal dafa yàgg lool néeg màgget la te nag juróomi nit daal ñoo fa nekkoon foofale nag ci biir Banjul a bokk ci ñi nga xamante ne fekke woon nañ naka li mooy kii di Hadijatu Kaba moom nag jaajëfal na ñi nga xamante ne ñoo doon nag dëkkandoor yi ak yenn ci eh, eh, eh, xale yi nga góor yi nga xamante ne ñoo fa nekkoon nag fekkee lii ndax ñoom nag ñoo daal di dimbale ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci biir néeg bi moom nag ci kàddo mu ne jamono bi nga xamante ne lii xewoon na fa kenn nekkul fa woon mu ne ñu daal di woo nag lii di ambulance fire service ñetti yoon waaye nag ñoom uyu te ñëwuñ woon jamono bi nga xamante ne lañ ñëw mu ngi fekk sax ñu daal di génne ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci néeg bi waaye landing badge nga xamante ne moom nag moo yor wàllum opération ak lii demakat dëkk foofale ci ke docteur a ne ci biir Banjul moom nag daxlu na yooyu la tuuma ci biir loolu tamit ki nga xamante ne mooy bakkaneku nag ki yor làmme ñu fire service fii ci biir réew Gambia ñu gën koo xamee ci Amadou FM Ndiaye moom itamit nag daxlu na yooyu la tuuma daal ànd ci leeral ne ñoom a ngi fa teew nag ci waxtu Mohamed El Bojang mi nga xamante ne bokk na si ñeneen ñi di nga xamante ñoo fekkoon nag lii foofale ci biir Banjul mu ne daal li nga xamante moo fa xew Euh, moom du joxoñ abaaraami tuuma euh, lii di naka fire service waaye daal dina wax ne néeg bi dafa màgget te yàggul lool euh, loolo waral naka lii xew ci biir loolu tamit naka gestu wane ne comme niñ la ko jukkayoon rek ci njël kenn naka ñàkkul fa bakkanam waaye nag am na ñoo xamante ne jëlee nañ fa nag ay gaañu jamono ji ñu nekk dina ka di leen faj ci kër docteur bi nga xamante ne moo nekk naka foofa la ci biir Banjul mbokk yi kon bu ko defee ñu gestu suñu mujjantalu xibaar fii ci biir kër gi ah, ñi nga xamante ne ñoo doon naka mbootaayu ah, li di naka sàmmkat yi ak ñi yëngu ci wàllum yarum li di gàtt fii ci biir réew mi ah, ñoo daal naka di ñaax li nguur ne nañ ubbi naka lumo yi nga xamante ne ñoo ne ci biir réew mi bu gannaaw bi nga xamante ne naka li di jàngoro mbas mi mu di coronavirus mu ngi daal di naka dugg fii ci biir réew mi ci biir ñoom wax nañu ne nguur naam ne tegg na yenn ci sate nga xamante la daal naka di tëral ah, ci lu jëm naka ci nu ñoo def naka xeex ah, daal di génne lii di mbas mi fii ci biir réew mi ah, mooy ubbi naka lii di marché yi kon ñu ñu ngi ñaan tamit di ubbi li nga xamante ne moo di lu mooy Modou Sow mi moo di seen bi moom naka wax na tamit ci lu jëm ci anam bi nga xamante ne la naka lii nekk dina saxal naka ñoom seen liggéey a dund fii ci biir réew mi daal di ñaan naka nguur ñu daal di leen ubbi Lamine Dabo mi nga xamante Ah, moom tamit nag ah, ab secrétaire général la ah, si ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllum jaayum naka lii di gàtt fii ci biir réew mi moom itamit nag ñaan na nguur ne nañ ubbi naka lii di lu mooy ndax depuis Tabaski ba tey ñoom naka jaayuñ te liggéeyu kon naka ñoom li nga xamante ne moo di seen dund jamono ji dafa métti lool. Ah, Moussa Ndiaye mi nga xamante ne ah, moom itamit nag mu ngi yëngu ci wàllum lii di jaayum gàtt fii ci biir réew mi ah, moom itamit nag mu ne mu ngi ñaan lii di nag nguur ne nañ ubbi lu moy ndax ñoom seen liggéey jamono ji dafa métti lool mu ne kenn mënut a jaay li nga xamante ne moo di nag sa gàtt ndax jamono ji nguur a ngi tëj li nga xamante ne moo di luumo yi euh, mu ne kon nag baax na ñu daal di leen bàyyi xel fàttaleku leen ne euh, ñoom itamit fii la ñoo dundee de euh, kon su fekkee ne nguur mu ngi naka teg yenn ci sart yi nga xamante ne teg na ko pour gis na daal daxlu nañ lii di coronavirus fii ci biir réew mi ñoom itamit wan nañ leen a mun a bàyyi xel ci loola Ibrahima O Diallo euh, mi nga xamante ne moo di président bi euh, moom itamit yokk ci yokk na ci naka kàddu euh, wax naka ci lu jëm ci li nga xamante ne moo di jafe-jafe yañ ci bi jamono ñi nga xamante ne nag ñoo dina ay baykat fii ci biir réew mi ñoom itamit bokk nañ ci de di ñaan nguur ne nañ leen fàttaliku daal di leen jàppale doole leen fii ci biir réew mi daal di naka ubbi li nga xamante ne moo di lu moy ndax ñoom it lu jëm ci wàllum dund mu doon loo xamante ne luy yomb la ak ñoom kon mbokk yi eh, lii moo doon suñu mujjantelu xibaar jaajëfal leen bu baax a baax ci li ngeen ñu doon topp eh, dig leen naka do dajee ba suba incha allah ci benn waxtu bi jërë ngeen jëf